Euh, Malick Gueye euh, nekkoon euh, député nekk itam membre ci grand parti. xool question bi sur le plan global waaw buñ ko xool rek ne bon voilà donc maintenant jàngat bi mooy Sénégal fi ñu toll bon je pense que ñii politique bon xaw nañ am kersa ruus nañu aussi parce que sénégalais yi dem nañ ba nit ñi gëmatuñu politique bu ñu demee nag ba yokk ci. bëgg a jël politique def ko ay saagante je pense que là suñu place aussi dañ koy xoolaat. mais surtout ay député que Farba Ngom député la Moustapha Cissé Lo député la. loolu est-ce que du gàkkal deru assemblée ba nga xamante ne daal nit ñi day am dama la xam nga wax nañ fi affaire faux billet ñëwaat ñëw ay saagante xam nga député boobu assemblée boobu je pense que tey ñun xawma la député yi bon franchement image ba ñuy wane par rapport ak audibilité bi ñu war a am ci Sénégal bon euh, phénomène yooyu noonu da koy da koy da koy yokk. loolu aussi mooy dëgg moo tax kenn mënu ci ànd kenn mënu ci d'accord en tout cas man personnellement man je pense que euh, maa ngi dénoncer loolu di wax ne bon ñi ñi war nañ xoolaat seen bopp ñun ci kujje gi la ñu nekk mais euh, àgguñu ci niveau boobu bay saagante ak euh, nga xamante ni maanaam dañuy xëccoog moom te adversité entre opposition pouvoir moo war a gën a metti ci biir parti mais sa biir parti man bon pense que bu ñu demee ba niveau yooyu àgg foofu sénégalais aussi war nañ xoolaat seen bopp xool ñu ñu jox réew mi ñan lañ loolu aussi ñu jàngat ci pour ëllëg ëllëg bu ñuy def falate ñu xam li ñuy fal aussi c'est important parce que dañuy placer position bi rek responsabilité bi ci leader yi mais ñoom aussi bon population bi war nañ xool di note bañ a fàtte bañ a amnésique lii lépp bu ëllëg jotee bu ñuy fal ay élection bu élection la ñu note ko ba lii mën a mën a orienter seen décision par rapport à euh, ni ki ki ñi ñu war a jox réew mi pour ëllëg. léegi yéen waa grand parti nan ngeen ni xayma euh, leneen li nga xam ni yitteel na askan wi mooy xeexum jàngoro coronavirus gi ndax seen njiit Malick Gakou bokkoon na ci ñi Macky Sall woon te pale ba yëfee door ngir ñëpp jàpp ci est-ce que fa ngeen jàppoon ngeen jàpp ba léegi wala euh, en arrière ngeen ci am ngeen ci lu leen metti waaw doo xam nga je pense que lu ñu mën a waxal euh, opposition bi lañu waroon def ci jamono yooyu defoon nañ ko maanaam président la république situation bi toll woon na fenn foo xamante ne képp ku déglu woon wuy gis président de la république euh, sénégalais yi dinañ la ŋàññi dinañ wax ne yow Sénégal intéressé wu la dinañ wax ne yow feebar bi ah maanaam euh, intéressé wu la moo tax le président Gakou ak yenn leader opposition bi dem wuy ji woon la président Macky la mais li ci xew yëpp après. su fekkee ne par exemple dañ ko doon auditer wala ñuy diagnostiquer un peu xool la situation mais li ci xew yëpp bon man tey bu fekkoon ne dañ fay delluwaat bokkuma ci ñi naan le président Gakou mu dem. parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses yoo xamante ni président Sall jël na ko ci ordonnance yi mu jël sax ah jël na ay benn ordonnance boo xamante ni d'accord première ordonnance rectifier un peu la loi du travail pour que ñu bañ a licencier dans ce contexte les employés la deuxième ordonnance c'est les choses. avec les mairies donc bon troisième ordonnance <laughs> bon jël euh, les permis de construire dans un contexte qui n'a rien à voir avec le Covid je pense que ordonnance boobu quand même bon ça n'a rien à avec pour que jël jël l'autorisation de construire jox ko les autorités administratives man dama comprendre dans un contexte de la maladie littoral beeg terre yeeg yooyu lan mooy seen yoon donc je pense que loolu. mooy bi muy wax ni euh, autorisation de construire léegi euh, préfet yeeg yooyu. mën nañ koy délivrer loolu loolu loolu dama xamul man ordonnance loolu daf maa jaaxal parce que dama xamul loolu par rapport ak loi de réhabilitation bi nga jox assemblée nationale loolu lan la ci la lan lan lan fan lay impacter ci xeexu maladie bi. man dama ko gisul te pourtant ñun bi mu ñëwee assemblée il nous avait dit carrément bi ñu ñëwee indi projet bi que voilà lépp loo xamante dañ ko war a def pour pour boole suñu doolee boole pour kii c'est vrai que l'administration continue les choses continuent mais euh, l'ordonnance boobu ak ordonnance bi mu jël pour faciliter au maire ñu se xaalis rapidement pour jënd ay dundu maire yëpp. ku nekk sa budget génn nga jënd ay dund bon je pense que la cour des comptes yenn IGE nañu taxaw xool aussi ndax <laughs> effectivement ñu bëgg ñi càmbar xoolaat affaire non xool parce que ku ci nekk nee nga jënd naa cent mille tonnes jënd naa cent tonnes jënd naa deux cent tonnes jënd naa bon voilà donc parce que euh, contexte bi bon en fait euh, yaa a aussi euh, le Covid business Euh, qu'il faut voir parce que euh, situation bi dafa c'est pas parce que dañ nekk ci benn situation de de la maladie que les choses duñ ko xool duñu sayma xaalis bi nga xamante ne Sénégal daf ko war a dañ ko war a def ci la force Covid 19 ñu auditer ko xool aussi fan la dugg fan la jaar fan la xool euh, wala parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais. mais au-delà de de contrôle yi comme ni ko waxee ay Cour des comptes yéen tamit député assemblée nationale information ni ngir ñu indi leeral euh, ci mbir moom. xam nga man je suis plénipotentiaire de l'opposition dans la commission de réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale man maa fa toogal opposition bi man ak Toussaint Manga ak le euh, la présidente Aïda Mbodj onze lañ le président Aymérou Gningue mu ngi may dégg daaw lañ gëj a réunion ba ñu réunion ba ñu yokk seen i commission yóbbu ko onze def ko quatorze ah man doon ma doon dugal un projet pour ñu dem vers un troisième groupe parlementaire euh, ñu nax ma noon laa ko mën a jàppe entre guillemets parce que dañ ni ma bon voilà on va aller parce que ce groupe bi ñuy def hybride de contribution euh, ça va la vitalité de l'Assemblée le président Aly Ngouille Ndiaye mu may dégg ay propos mais ba mu jeexee jeex na tey mois de juin bi le rapport règlement intérieur bi waroon terminé mais rapport bi fàtte nañ ko moo tax tey su démb bi ma liiree dégg ñu naan non c'est-à-dire qu'on va aller au mois d'octobre pour revoir le règlement intérieur pour mën a dàq Moustapha Cissé Lo mais attends c'est-à-dire que pour que un député qui est exclu de son parti euh, ne puisse plus siéger à l'Assemblée nationale mais loolu bu ñu ko defee ça va être une catastrophe parce que loolu les partis politiques au Sénégal man ñun ñii jurisprudence lañ si vous vous rappelez bien Moustapha Niasse daf ñu dàq ci partim donc dàq moom bon je pense que bu fekkee ne par exemple loolu la ñuy kii le manque de démocratie dans les partis politiques au Sénégal amul benn organe Euh, juridictionnelle buy légiférer sur la démocratie dans les partis politiques assise nationale yi waxoon nañ la haute cour de la démocratie boo xamante ni ñu am ay juges yoo xam ni dañuy juger parce que li am ci kii bi y a un juge bu ko war a mën a juger xool ndax commission de discipline bi li mu waroon def def na ko est-ce que bureau politique mooy dàq wala c'est le président du parti ki mooy dàq parce que association privée c'est comme société Euh, exemple bi may jël mooy est-ce que benn actionnaire ci société mën naa jéggi-jéggi ne dàq beneen actionnaire ci société mën ta nekk dans l'OHADA c'est la même chose un président de parti ne peut pas ne doit pas facilement toog këram naan ataayam bind benn këy ne dàq naa diw Sénégal rek la boo demee en France aux États-Unis c'est pas possible moi je me benn anecdote waaw nag dañ leen doon mosal as euh, li nga xam ne moom moo fay xew jamono ji donc histoire de